Alarba bi wees Aliou Sall ñu gën ko xamee ci Mourid Sall di doomu maye ay masque ak loxo amical bi école de football Yunek, nekk ci commune bu Hann air ngir ñu moytu ndiku Covid-19 xew-xew bi mi ngi espace associatif bu école El Doudou bu ay ati nga man en tant que vice président Mundus Maris bu organisation boo xam dafa basé au Belgique damay célébrer at mu nek le 8 juin ak amical bi comme ren nag ñu def compétition mënuñu daje ñu ne ñu wax euh, nangu dogal yalla bobu at euh, jamono bu nek dafa am lu mu laaj ay masque la wax ak ay bidon yu raxaso motax ren ñu ne ñu def suñu compétition ñu ko célébrer mais nak dinañ ñëw manam li nga xamné moy suñu contribution ñu joxé ko. pour sen xalé yi nga xamné ñom ñoom ngeen di encadrer ngeen man leen ar ci fièvre bi mo waral li moo tax wul dañ ko def dal ci lu mu gëna simple donc li ñëw ëlëk li ñi def du lu may fixé dinañ ànd li lii la ñuy defandoo am ci nak ay xalaat mo dal lu ma man def ci aduna rek moy def tout pour que sport bi baña dé activité buñ ma ti wax ñom man pare na ci sama man-man def ci lama man nit na mënul def lepp man en tant que doomu yarax damay def am na maire bu fi nekk ak maire bu fu nekk xam naa mi ngi leen di jàppale si day def keneen koo xam ne doomu yarax la tamit dina def mais man li ma man man bu soobee yàlla du ma ci am limite dinaa continuer di ko def lépp loo xam ne rek dafay permettre xale yi ñuy am ay compétition loolu benn affaire la boo xam ne foo ngeen ma woo rek ma wuy si leen

man diggante daaw jéeg ak ren ni xëy na ci lu ngeen yëg lu ngeen yëgul lu man ñaar téeméeri xale ak fanweer ak juróom deux cent trente cinq xale yi ñu naroon génne école fexe naa ba ñu am kayitu judd mais def ma ci benn publicité am na xale yu mandal di ko liggéey damay dem tribunal di ñëw audience foraine damay ma def budget bi ma amal si ñëw joxe ko pour ñu def ci ay photocopie ay yu kenn xamul yooyu tamit bëgg naa mu nekk loo xam ne dañuy àndandoo cette fois yi ñu ànd mu nekk activité boo xam ne dañu ci war ànd collaboration Mundus Maris ak amicale bi ñu xol nan la laaj ñu taxaw ci buñ ci taxawé nak initiative ñokay koy suñu bop ba paré dem ci ay autorité né leen li lañu bëgg parce que autorités yi nekkuñu fi pour ñom dañ fi nekk ñun ñoo leen fi tek ndax élection bu joté ku fi falu ay nit ñoo la fal li ko commencé président de la république ba ci maire maire maire commune bi gëna ndaw kon nak ñun am nañu droit am suñu initiative manam dougal li nga xam moy état civil suñu programme yi def ba légui loolu nek na priorité bo xam bëgg na vraiment ñu boole ko li ñuy li ñuy li ñuy Maguette Diop di njital amical bi rafetlu initiative bu seen partenaire bi yag leen gungé ci seen activité damay remercier suñu doyen bi vraiment si exercice bi bi bi mu def daal parce que comme ni mom ni ko waxé rek. bii mooy sixième édition yi cinq cinq éditions yi passées yëpp tournoi la la doon organisé de foot yàlla def na sixième année bi dafa tombé at euh, Covid dix neuf bi ñu xam ne kenn mu mun mun si organiser tournoi moom at ay collaborateurs ñu toog euh, xalaat initie ne comme bu ñu organiser tournoi kon ñuy def mooy jël ay mm, ay masques jox ko amical bi amical bi mën ko jox e-, école de de fuf mbëli loolu mu waxee mooy vraiment di di ko sant di ñu ñun li amoon nañu initiative bi pour pour pour ah, def ko mais yàlla def na yi moo amul woon comme yàlla bu defee moom ñu am initiative jox ñu ko vraiment ñun loolu dañ ko si sant di di di si gëgëram